dal leen ak jàmm alxamesu tey jii juróom-ñaari fan ci weeru décembre atum 2017 yéen kaay yépp xëy otali jas ca ubbiteeg aéroport Blaise Diagne bi un joyau au cœur des massifs de Diass nga ngalam ci mbir xolub massif yu Diass yi la Soleil yéen moo ko fësal si xëtam bu njëkk yéen bi ne lu taaru la ci wàllum architecture teg ci di ci ànd ak mbégte Sénégal tegu na ci piste bu bees Le Quotidien moo ko bind yokk si di xibaar ni njiitu réew mi Macky Sall dina ko ubbi tey ci alxames gi ci teewaayu naatangoom bu gàmmi di Adama Barrow Comoro ak bu Guinée Bissau bi José Mario bass ak ñépp ñi ko ci jàppale su fekkee yéenekaay bëgg nañu lool ci bile aéroport ñu ci bëri koppar yi ñu ci dugal moo leen yitteel bokk na ci enquête quotidien bi jàpp ni ab gouffre en milliard la yéenekaay bi ne ëmb bi metti woon na lool turu baay bi ba léegi di jur coow niki turandoom waaye doom ji juddu na di ay kàddu enquête yéenekaay bi samp ab laaj ci koppar yi ñu ci def ñu xayma woon ko ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari milliards suñu koppar waaye ñeenti téeméeri milliards milliards lañ ci def ngir AIBD mën a ubbi app googu sax dàkku nañ ko lu tollook ñeenti yoon l'observateur ne ab coup d'état financier la yéenekaay bu Groupe Futurs Médias bi ne njëkk gi ñu ci def fayu bor bu ñaar fukk jàpp fanweeri milliards di rup ci juróom benn weer yu ne lu ko dalee juin 2018 ba 2032 la ñu nar a dikkee yéenekaay bi ne mu wuute loola ak li ñu waxoon AIBD jarul ñeenti téeméeri milliards ak lu topp ci gafaga askan bi ñoom ñi nga xamante ni ñoo nar a fay bor bi nga xamante ni dina toll ci taux d'intérêt ko jël 8 virgule 65 pour cent ñu xayma ko ci koppar juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ak juróom fii ak 2032 li ni mel tax ba yéenekaay bi tegaluñu ci courage beneen sàlleen bi yéenekaay yi xëy di Xalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru bi ñu nëbb jant bi juróom-ñaari fan ci weeru mars bi ñu génn ba léegi ngir ay njuuj jëm ci wàllum koppar toll ci 1,8 yi ñu ne da koo tibb ci caisse d'avance bu boobu les maires bu Ndakaaru ci ndimbali ay xaritam ak i nitam war a joxe nag a am combat yëpp nëgandiku laata àtteem ginnaaw ba ñu dindee malaanu kiiraay bi mu amoon ci tànnub député yu fanweeri fan ci weeru juillet atum 2017 waaye nguur gi moom jaaree ko ci agent judiciaire ne bile caution ñu joxe nag duñu ko nangu benn yoon si biir libération lañu ko xamle la tribune ne li mel tax na ba Khalifa Ababacar Sall day mujjee jaay ay moomeelam waaye tamit li nga xam ne ay mbokkam tayle nañ yëglekaay bi samp laaj ne baa du mujjee ci àpp lu yenn ci yëglekaay yi gisee affaire Khalifa Sall bi niki mbirum politique ba tax na ñenn ci ñu koy jàppal tànk ak i analyste dañoo gis ni rek jafe-jafe Khalifa Ababacar Sall yi ci wàllum yoon kenn moo ko ko moo di Tanor Dieng moom mi nga xamante ni daa rek gumba tax lu ne rek day jàppale Macky Sall li ni mel nag la Khalifa Ababacar Sall ak i ñoñam lànk ndaar yi ne PS xalaatul benn yoon ñàkk am mbër ci tànnum jeetum réew yu 2019 si bile xeex nag maire bu Ndakaaru am na ci ndimbalu Abdoulaye Elimane Kane bi bëgg ñu bàyyi ko ab bàyyum dëkkandiku suñu sukkandikoo ci Walfadjri Quotidien laak seen kaay ne Khalifa Ababacar Sall am na ndim ndimbal bu mat ndimbal ndax ci biir yéenekaay bi Abdoulaye Elimane Sall génn na ci pat pataaral gi mu nekkoon wane jàppaleem xalifa Sall ngir mu mën a am ab bàyyib ndëkkandiku suñu xoolee ci ay jaar-jaaram ak état de service li yëpp nekk ab caution de responsabilité ngir ñu mën koo bàyyib bàyyib ndëkkandiku di xalaatub Abdoulaye Elimane Kane kon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xëtu yéenekaay ñu yendoog jàmm